ndeysaan mbokk yi mu ngi noonu ñaari mbër ci digg géew gi ci diggante ki nga xamante ne nii moom moo di safara ak mbeng mbooro safara dóor na léegi safara dóor na léegi safara dóor na safara dóor na safara dóor na jàppoon nañu safara dóor na jàppoon nañu safara dóor na jàppoon nañu ñaari mbër yaa ngi xeex ñaari mbër yaa ngi xeex ndeysaan ñaari mbër yaa ngi xeex mbeng mbooro ak safara ñaari mbër yaangi xex meng boor ak safara jappante nañu meng boor ak safara jappante nañu ndaysan meng boor safara safara moo ñu wan meng boor moo ñu wan kanam ñaari mbër yi jàppante nañu Mbengue Mbolo ak Safara nga Mbolo ak Safara nday lii est-ce que du deñ arbitre bi àtte na leen arbitre bi àtte na leen arbitre bi àtte na ñaari mbëri ci diggante Mbengue Mbolo Télé Pikine TV moo ngi noonu en ah, direct sur la télé Pikine TV Mbengue Mboro moo ñu Safara moo ñu wan ginnaaw Mbengue Mboro moo ñu wan kanam Safara moo ñu wan ginnaaw Mbengue moo ñu wan kanam ñaari mbër yaa ngi lewtoo ñu ngi demee wet Safara Mbengue Mboro cey lii tur <laughs> cey bii Safara sa tur bi boo noppee wala nga koo changé ndax lii turu ndax safara dina nekk tudd sax mais safara dóor na safara dóor na lii tax ñu ko daa am safara dóor na ñu ngay xeex ñaari mbëri laa ilaha illallah ñaari mbëri yaa ngi xeex safara ngi dóor safara ngi dóor lan la dóor nga daatu yee safara safara daan na meng mboolo safara daan na meng mboolo safara daan na meng mboolo safara daan na meng yee meng mboolo xeex ba daanu da ngaa ndeysaan ana mbengeen yi en direct sur la télé Pikine TV ñoo ngi fii ci arène nationale ndeysaan tey lii safara mbeng mbooro safara daan na mu ngi noonu ñu koy sotti ndox nee na moom la laa ilaha illallah mu ngi noonu ngi ànd ak ay magam ànd ak ay rakkam moom safara waaye mbokk yi ñu fàttali leen ne leen grand combat bi mu ngi dox ci diggante ki nga xam ne moom moo di Sokh 2 di rakk ci ki nga xamante ne ni moom moo di Sokh gis nañ fi waa Pikine ñëpp ndeysaan waa Pikine ñëpp ñëw nañ rawatina waa équipe Fallaye Balde ndeysaan mbokk yi yéen a ngi ñuy suivre en direct sur la télé Pikine TV ñu ngi fii ci arène nationale waaw. ah. Madama. mbokk yi comme ni leen ko waxee woon ñu ngi fii ci arène nationale. ñu ngi fii ci arène nationale ndeysaan la Pikine TV télé bi xew ci jamono mu ngi fii ci arène nationale ndeysaan seen mbokk seen xarit Ibou Ndiaye moo nekk ci micro bi grand combat bi dox ci diggante ki nga xam ne moom moo di Sokh 2 nekk écurie Falaye Baldé ak ki xam ne moo di Talfa nekk écurie Dóor Dóoraat ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu si digg géew ga drapeau Habib Mbow la ñuy bëre moom abi Mbow borom automobile ñaari mbër yaa ngi noonu ci diggi géew gi ndeysaan Sokh ak ki xam ne moo di Talfa Sokh moo ngemb am lu vert li ci kaw Talfa moo ñëwal kanam ñaari xale yaa ngi noonu ci diggi géew gi at baa ngi at baa ngi leen di xool ndeysaan Talfa Sokh drapeau abi mbaw automobile la ñuy bëre bangi baa ngi woote ñaari xale non ngi noonu si digg géew gi waaye doon jaay lépp lamb ndeysaan xale yi waaj nañ ànd ini seen i mbokk ñaanlu nañ ànd nañook seen i sëriñ waaye tey ñëpp ak ci biti toog di leen xaar ndeysaan lii mooy lamb lambang ngi lambang ini ngi nii ndeysaan ñaari xale yi ñu am yaakaar ci ñoom Waxundo nekk écurie Fallaye Balde Zil Balde ko indi mu ngi noonu Talfa nekk écurie Dóor Dóoraat tey jii ak bi leen di xool ndeysaan ak leen di xool ñaari mbër si digg géew gi ñaari mbër yaa ngi si digg géew gi Sokkuta di rakk ci ki nga xamante ne nii moom moo di Sokk numéro nekk écurie Fallaye Balde daje ki ne moo di Talfa grand combat Talfa mu ngi nekk écrit dool doolaat Sokh 2 moo ñëwoon ginnaaw noonu arbitre bi ñaari xale yaa ngi lewtoo eh Sokh 2 dóor na Sokh 2 na jàppante nañ Talfa Sokh a ngi dóor Sokh a ngi dóor Sokh a ngi dóor eh lee luy xew dara amul Talfa Talfa wër na nomb Sokh 2 Talfa wër na ko nomb Talfa wër na ko nomb Sokh 2 Talfa wër na ko nomb luy xew luy xew yaa xale bi lay laa xëy bi da mën a bëre Sokh 2 Talfa sokku 2 yek nañ ci souf ñom ñaar Talfa sokku 2 la ilaha illa allah ñaari xale yi bëre nañ ñu ci souf luy xew luy xew luy xew albi woote na lu xew lu xew lu xew lu xew albi du jox na Talfa de albi du jox na Talfa neena ba ya yaa daan ndeysaan ñaari xale yi nañ ñu bëre bu lay mom sokku 2 sokku 2 bëre na bëre bu rëy ndeysaan waaye Talfa daan nako mo baye ko dóor dóoraat mu ngi noonu ndeysaan moom Talfor soq doo ngi noonu oh xoolal Pape Sarr Pape Sarr a ngi noonu te daw di ko jëli xale bi demee dawul bëri na ndeysaan lii mooy lamb lii mooy lamb. lu xew. eh Talfa kese war na maam Seera Fall. eh Tal eh, bu Talfa la. Talfa la. Serigne Touba Talfa la. kon Franc ngi noonu Franc ngi ngi nii moo ñëwaat Talfa la ñu bëgg barki suñu bëre maa yaa ñu ko bëre bàyyi. Golo li mu bëre lan la. kon nijaayam la. waaw li ñu bëre dañu ko ko bëre ñoom Pouwaale ñoom Mawlo ñoom Franc ñoo ko bëreloo ni ko boo ko jàppee teg teggi bu ko bàyyi teg ndax moo la gën a diis. combat bi ne ko boo ko jàppee bu ko bàyyi teg ndax moo la gën diis te dafa diis a suuf bul jàpp ci tànk jàpp ci diggan diggan digli ba ci kaw di bëre moom foofu waaw. waaw comme moom ndaw la rek man yoruma ko nijaayam rek laa asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ndeysaan ñu ngi woon fii ci arène nationale sur la télé Pikine TV seen mbokk seen xarit Ibou Ndiaye moo nekkoon ci micro bi gis ngeen noonu grand combat bi dox ci diggante ki nga xam ne moom moo di Sokh ak Talfa Sokh moo ba moo bàyyeeko woon écurie Fallaye Baldé Talfa bàyyeeko woon écurie Dóor Dóoraat waaye gis ngeen li fi xew kii di Talfa moo mujjee am ndam ci kaw ki nga xamante ne ni moom moo di Sokh 2 waaye ñaari xale yi bëri nañ bëri bu rëy ndeysaan mbokk yi lii la leen télé Pikine TV indiloon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen jërë ngeen jëf